retraitu Yékini yi mhm. euh, Yékini monument la woon ci làmb ji mën nañ ne mhm. euh, retraitam euh, lan la kii ci làmb mhm. ban lan lay symboliser ci làmb retraite waaw retraitam moom laa la moom laa njëkk tijjee je pense que retraitu Yékini am na lu mu wàññi lu bari si dose làmb xaw na wàññeeku si demu Yékini dose làmb bi ni làmb amee woon dose dafa mel ni benn café boo xam ne tey nga nga dosé ko boo ko naanee nga xam ne vraiment café bi dose loolu moom manqué si làmb làmb café làmb ji yaakaar naa c'était Yékini te bu mu demee tamit am na lu bu bari wàññi si lamb boo xool bi ko Balla Gaye 2 daane trois ans yooyu mu toog rek vide boobu commencé woon nañ ko sentir vide boobu entre 2012 ba 2016 bu mu ñëwaatee quatre ans boo xool ko làmb ji commencé woon na am vide bi ko Balla Gaye 2 daanee parce que instant boobu làmb amatul woon euh, koo xam ne benn salange boo xam ne moo doon tax muy am Balla Gaye jamono jooju mu doon daan Yékini dafa amoon salange salange mooy lan déboulonner le roi des arènes Yékini ne moom il va il va partir jusqu'à la fin à sans sans connaître la moindre défaite donc loolu moo tax sénégalais yi gënoon intéressé wu si laam ndax bala Gaye 2 dina réussir objectif boobu ndax Yékini dina réussir objectif boobu ban xale moo fiy jëlee Yékini Yékini ndax dina dem ak roi des arènes bi bàyyi lamb donc yooyu dafa neexaloon làmb donc bi Yékini daanoo mu togat encore 4 ans ñewul je pense que fofu commencé na am vide bu mu ñewé tamit il a man je pense si sama humble avis il a commis une erreur bo xamné jël jël Lac de guerre 2 pour man xamul won Lac de guerre 2 parce que Lac de guerre 2 yaakar na mbeur la bo xamné ñu bari xamuñu ko dafa dafa dafa bari ay facettes yo xamné ne da ko neub il faut nga sétane carrière am au début man sétane na carrière am au début motax tax ma ne bu Yékini il a fait une erreur jël Lac de guerre 2 sans connaître vraiment qui est Lac de guerre 2 parce que âge bi nga am nga jël xalé bo xamné vraiment machallah sur le plan physique sur le plan mental tactiquement euh, ki amul morom tactiquement sur le plan tactique amul morom si si si si, si lam c'est un lutteur bo xamné tacticien la mom ak boy ñaar donc ñom tactique lañuy bëré donc motax né yékini dafa jël lac de guerre 200 xam ko mu jël nak dafet ba paré jëlalé ci blessure mu dem soigner bayi lamb avant l'âge de la euh, avant quarante cinq ans donc man yaakaar naa ne vidam commencé na départ du mu jëlee défaite en 2012